ak mbooleem olama yi nga xam ne ñu ngi ci groupe bi ak membre yépp ak fu ñu mënta nekk di nuyu mboolem koo xam ne taalibe Cheikh Ibrahima Niass nga radiyallahu anhu seen nuyoo yépp nag ma jël ko teg ko ci ñaari loxo muy ki nga xam ne mooy alxalifa muy Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak ci loxo ki nga xam ne mooy imaamul akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé gannaaw bu ma leen neyoo ñoom ñaar ñooñu neyu naa képp koo xam ne njabootu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nga <clears throat> kàddu yi nag may yëkkati kàddu la yoo xam ne kàddu yi naqar la waaye kàddu la yoo xam ne kàddu yi tiis la waaye kàddu la yoo xam ne kàddu yi yëgle ak kadduy dénoncé ak kaddu yoo xam ne mën naa wax ne kaddu taalibe bu am yëg-yëg ci sëriñam benn waay wax ci moom ak ay taalibeem di wax ci sëriñam wax yoo xam ne foo natt ñaawaay ba romb na ko di wax joo xam ne su fekkoon ne ci xam-xam lañ doon wax konoon amul benn problème ndax ñun dañuy wax ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mbiri bàyyi yépp dafa leer guddeem ak bëccëgama yem mooy bàyyi mbiram amul dara luñ ci mantalay ci alquran ak sunna looloo tax mu daan digal ay taalibeem nañ jàng waaye yar ay doomam ci njàng ak njàngale incha allah buñ continuer tuuti danañ ko xam muy nag wax joo xam ne ki ko sabab mooy Abdou Hamid Sarr ak ay taalibeem am na benn waxam bu yàgg boo xam ne jotoon nañ ci ba taalibe yi jogoon nañ bëggoon ko attaqué te loola dëgg dëgg du jikkooy sax taale bàyyi ndax taalibe bàyyi ku ko xam xam ne du dox ci dara loo xam ne dafay jëm ci wàllu violation ndax wax naa ne Baye Niass radiyallahu anhu def ñoo digal ne laa tadribu abadan laa tustimu abadan fa in duribtum fa sabran innakum sabra bu leen dóor mukk bu leen dóoree bu leen saaga waate mukk buñ leen saaga mbaa ñu dóor leen yenn na ngeen muñ kon Baay Ñas muñ lañu sant waaye nag ci biir muñ googu ñuy muñit olof yi dañuy wax ne dëgg-dëgg nag am na loo xam ne seetaan ko état warut koo seetaan ndax fitna la te fitna dafay nelaw te yàlla rëbb na ko ko yee état warul seetaan mukk kenn kuy askanee boppam ci kër Seyda Aji Malik radiyallahu anhu di askanoo boppam ci di askane boppam ne ma Abdou Aziz baax mooy sëriñam muy muy saaga Cheikh Ibrahima Niass ay taalibeem di saaga Cheikh Ibrahima Niass waxuñ dara ci xam-xam lu dul ne ay tuuma yuñ koy teg ak ay saaga ak ay wax yu ñaaw dëgg-dëgg suñ demee ba am taalibe baay yu muñ ba jëf-jëfin woo xam ne mën naa dox ci diggante Tiwaawan ak kër Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loolu dana ñaaw te kon loolu état war na ci yëkkatiku def ci ak seex maanaam def ci ak taxawaay ngir faj lii nga xam ne moo naqadi taalibe baay yépp mboolem kuy taalibe baay rek naqadi na la gannaaw loolu it ñi dëkk ci waawan muy xalifa bi sëñ Mbay Mansour maa ngi koy interpellé di interpellé mbooleem koo xam ne ci waawan nga dëkk ñu jéem a wax ci lii nga xam ne Abdou Ahmed Sarr wax na ko walla waxoon na ko bàyyi déggoon nañ fiit mu waxaat ko sëñ Mamour ñas déggoon nañ ko mu wax ko Alaaji Abdoulaye Niass léegi nag dafa yar ay taalibe yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk di wax lam doon wax di ko nettali muy nekk wax yu ñaaw loolu dëgg-dëgg xajut ci diggante ci Tiwaawan ak kër Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu li tax xajut si nag. dinaa ko nettali rawut nag maanaam rawatina bi nga xamee ne moom dafay askanoo ne taalibe maam Daba lu tax ma wax ne lii waruñ koo seetaan bu ñu delloo ci histoire dañuy fekk ne maam Abdou Aziz Dabaax mii ngeen gis dëgg-dëgg ku yàlla amaloon wóllëre la digganteem ak Cheikh Ibrahima am na ñuy bind ci histoire sax ne xalifa bi bi mokkalee alquran moom maa abdu bokk na ci ñi ko déglu loolu li muy firndeel bu l'histoire boobu wéree li muy firndeel mooy diggante Baye Niass ak maam Abdou Aziz baax rafetoon na rafetaay boo xam ne dëgg-dëgg koo xam ne taalibe maam Abdou Aziz baax ngay askanoo ne moom nga waruloo yëkkati lu ñaaw di ko teg ci deru Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu baay radiyallahu anhu ku daan jokk mbokk la buñ demee ci histoire wax naa ne nettali na xalaaqa baay ak maam Abdul Aziz Dabaax waaye doy na seede rek ne maam Abdul Aziz baax wax na wax joo xam ne ci baay dëgg-dëgg wax gënul koo taaru ci diggante sëriñ ak mbokk sëriñam ci diggante taalibe ak mbokk taalibeem waaye ci diggante jullit ak mbokk jullitam wax jooju nag jëf moo ko jiitu ndax wax ju ñaaw joo dégg su fekkee ne ci lislaam la la ko jiitu mooy jëf ju ñaaw looloo tax yàlla wax ci alquran ne laa yuhibbu llaahu jaara bi su illaa man sulima yàlla bëggut ku béral wax ju ñaaw ndara kuñ tooñ tooñaange mooy lan mooy nit ki wax ci yow lu ñaaw wala nit ki saaga la walla nit ki xas la wala nit ki tuuma la ay tuuma yoo xam ne yu ñaaw a ñaaw la ci lislaam dëgg-dëgg boo yëkkatee aw saaga manees naa wax ne saaga wii kat mën nga koo lay ñaareel bi mooy nit saaga la nga fayu <clears throat> wax ju rafet joo gis ci lislaam jëf ju rafet moo koy jiitu waal jasaawul ihsaan ilal ihsaan jëf ju rafet dëgg-dëgg fayam mooy fay gu rafet baay dafa joge tukki dal di jël ci sëri caam ay mbubu yu seer te rafet ay mbaxana yu seer te rafet boole koog enveloppe bu duun boole koog lu nekk rek def ko ci ay wolis ñëw jox ko ma Abdou Aziz Dabaax mi nga xam ne waa jii di wax wax ju bon ji moom ak ay taalibeem ci lañuy ñuy askanoo li taxoon bàyyi def ko bokk na ci jokk mbokk mooy li silati rahm bokk na ci bëgg mbokk gi tafoo nekk benn ñu xam ne diggante Tiwaawan ak kër Alaaji Abdoulaye Niass benn problème amu ci dire que nit ñi yàgg nañ ci bëgg a taxal histoire depuis ci Alaaji Abdoulaye ak Seydi Hadji Malick ma Abdou Aziz Dabaax dal di bind lenn lettre lettre bi mu bind def ci ay benn xasida xasida ji nag dinaa ko jàng ñu dégg ko ngir ngeen xam ne lii bu ko nit waxee ci kilifa yow ngay taalibeem ñëw wax safaan ba dañ lay peese yaa kilifa ko ku gën a mat su fekkee ne kilifa gaa la gën a mat ñu xam ne sa wax ji moo nekkul dara waxuma laa waxi Abdou Hamid saar jii nga xam ne peese wul sax mbaggam yoo ci lislaam euh, xasida jooju boo demee ci Cheikh Mahi Ibrahim Niass mi nga xam ne mooy xalifa bi tey téeréem bi nga xam ne mu ngi ko tuddee madrasatu Cheikh Ibrahima Asuufi téere boobu indi na ko ci gannaaw bu mu indee ay wax yu ay boromi xam-xam wax ci baay ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci biti réew wax yu rafet yoo xam ne dëgg-dëgg jëf ju rafet moo ko jiitu jëf ji rafet ji jiitu mooy jën jëf mooy jëf ji nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu jëf na ko kenn ku nekk ci ñoom Baay nag radiyallahu anhu ku ko xam xam ko ci jokk mbokk xam ko ci wax nit lu baax ànd ak jëf ju ñaaw ju ko nit mën a jëf daawut fay wante jëf ju bon bàyyi lu rafet rek la daan fay wante waaye digganteem ak ma Abdou Aziz Dabaax dëgg-dëgg lu rafet rek moo ci mos a dox boo demee ci xasida ji mu ngi wax ne yaa nuqbatul ulama kansul masakini sayqul masaayiqi fi lislaami wa diini sulaalatu qutbi abdillahi sayidina xalifatu cheikh burhaan albaraaini aba sabii alladi ayatuhu baarat sawi alcuquli bila raybin wa tahmini ñetti bayit yooyu rek doyoon na ñu xam ne maa abdou aziz fi mu tegoon bàyyi foor na ndax lim tuddee bàyyi mooy tànnee fi borom xam-xam yi maanaam bàyyi borom xam-xam yépp buñ dajee bàyyi mooy tànneef bi waxut xam borom xam-xam yi Sénégal yi de def ne borom xam-xam yépp buñ dajee bàyyi mooy tànneef bi mu teg ci ne bàyyi mooy kënzul masaakin yi mboolem miskin yépp bàyyi mooy seen ndàmm miskin nag ñaar la miskin yi nga xam ne dañoo ñàkk ci àdduna ku ci mos a janoog Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu koomal la moo tax woykat bi di wax ne jën faqiir nga def ko risaas bàyyi haadi bàyyi haadi rek ko ko man ku ñàkk nga def ko mu koomal waaye miskin yi nga xam ne dañoo soxlawoo yàlla dëgg-dëgg buñ dajeeg Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu may leen mu xamal leen yàlla bañ dooyal mu teg ci ne ko seyqul masaayiq yow bàyyi ñes yaay sëriñu sëriñ si sëriñ si lu ñuy bari bari bari yow bàyyi yaay seeni sëriñ kon sëriñ bokkut ak boroom xam-xam sëriñ nit dana ko doon ci baayam sa baay ne woon sëriñ ko doon sëriñ waaye xam-xam moom duñ ko doon yàllaa la koy xama rek wala nga jàng xam ko mu ne bàyyi ñes radiyallahu anhu yow yaay xam yaay yaay tànnee fi boroom xam-xam yi yaay sëriñu sëriñ si fan nga nekkee sëriñu sëriñ si fil islaami wa diini maanaam ci lislaam ci diina mooy ci diina lislaam yow Baay Ñas yaay sëriñu sëriñ si ci diina lislaam yow Baay Ñas yaay fu borom xam-xam yi yow Baay Ñas yaay kan yaay sulaalatul qutbi habdillaahi sayidina yaay ki nga xam ne yaay doomu qutbu bu mag ba qutbu ban qutbu bi nga xam ne suñ sang la kan mooy suñ sang boobu mooy xalifatu seyqi ولا نقول دل سيدنا بل باي سخلا وقنا كو خليفة الشيخ يو باي خليفة بسخت جانغا واي برهان البراهين يا ليو لي يو باي نس يا ليو لي أكن نرو أقل شيخاني وخون باي شيخاني دفع وخون باي نكو دينغا أبا إسحاق إنك ليس ريب بأنك في الوراء عجب العجاب فإن يك في الوراء لباب لب فأنتم في عمو للب اللباب وإن يك فيهم بحر عباب فأنتم ذاكم البحر العباب وإن يكن للنبي علي بابا فإنكم لذاك الباب باب دنجا فقد جدت سنته إتباعا وليس لبدعة منك ارتكاب bu wax na bàyyi ba mu yàgg mu wax wax joo xam bihi saaru isaa su'ilu ajaabu fa kam qad jaakum minhum su'aalun wa kam qad jaahum minkum jawaabun mu ne yow baay dëgg-dëgg yow yaay abu ishaaqa amul sikk ne yow kéemaani kéemaan nga su fekkee ne mbindee fi am na lubaabu lubbin yow baay ñes yow yaay lubbul lubaab bi mu ne baay su fekkee am na géej gu fees ci mbindee fi yow baay ñes yaay géej gu fees googu su fekkee ne yenentu Ali bunt la woon ci moom yow bunt nga ci Ali ibn Abi Talib yeesal nga diina lislaam yeesal nga sunna yenentu bi te masuloo def bidaa lu yenentu mos ta def waaye mu ne bàyyi walil olama bi ilmikum imtidaadun bihi saaru isaa su ilu ajaabu am aka bëri borom xam-xam wala borom xam-xam yépp ci seen xam-xam la ñuy ba nga xam ne waxtu boo xamee ne dégg nga maanaam ñëw nañ ci yéen rek dañu danañ tëbu ba ci lañ mujj nekk ay borom xam-xam bi saaru isaa ilu ajabu mujj nañ ci ni ñuy tëbboo xam-xam ci yow bu ñu leen laajee ñu tontu fa kam qad jaakum minhum sualun wa kam qad jaahum minkum jawaabun bëri na boo xam ne laaj nañ la masala bëri na boo tontoo masala boobu bàyyi mos ta delloo laaj lu tax seyxaan yi mu ne bàyyi bi maa fil kutubi qad taati wa taati bi maa la bi lam yati qattum bihi kitaabu da ngay indi li ci téere yi waaye léeg-léeg nga indi loo xam ne téere indiwut ko wa ma ma taxtalifu maa si ulumin fa marjiahu li qawlika wal maabu mu ne waxtu woo xamee ne uute am nga uute ak borom xam-xam yi yow Baay Ñas fa nga ànd foofa la xam-xam ànd ku ànd ak yow ca foofa dégg wax na dëgg ku ànd toog yow juum na kon li mu wax Baay ne ko bu burhaanul barahini loolu dëgg-dëgg woom wax na ko ko fii ci Sénégal waa seyqaan yi mën na abba di ab sërif ci Mauritanie wax na ko bàyyi kon loolu dara gënu koo nekk dëgg wax gum ko wax ne cheikh khalifa cheikh tidiane nga ki nga xam ne mooy Ahmad Hiyaas Sukayri ji wax na ko ko mu ne aba aba mu ne aba aba aba sabi alladhi ayatuhu baada sawil luquli bila raybin wa taxmini قد سلمت بما عاديت لي كرما تفضلا منك يا ذا الجود واللين من أخمس وخلانيس تدن بها لوجه من خلق الإنسان من تين gis nga xoolal wax ju rëy ji يو يو يو ابراهيم يو ميغا خمن سي كاوتيف علمل نقلي يو ميغا خمن سا كاوتيف علمل نقلي تا لول امو كين كوتي جوم اكا واخ دغ باي نس رضي الله عنه كو جومالون نيني لا شيخ موسى كا باموي وي باي دا با واخون باي نكو راي اي طريقه تجان دي موكو في يور كو ويدي دنگ كو ويدي يرل كاسف الالباسي mu ne boo weddi ne mooy yaraay lislaam rek yëral kaasibul albaasi mu wax bàyyi ne ko taalif na ay téere yu jommal ñuñ sariatu jommal ñuñ xaqiqatu jommal mbokki barhaama moo xam sariatu boole xam xaqiqatu booleeg sirru sirru mi siiwal siidi barhaama bàyyi moo raw xasaali yi fii sirrin wa jadwalihi falaa yubaara bi ibrahima barhaamu mu ne kenn du maanaam maanaam liwaatoo ak Baay Ñas lolou ken duko def ak foore bu def rek mokoy def mu tek ci ne mo raw junaydi fi ilmi tasawuf نعمان في الفرد والعديس برعام مورو سنوسي في توعيد ما لك وخ مورو دنگ سيوتي في علم التفسير دنگ برهاما سيوتي موك راو تي علم التفسير يمو تي لول دمون مو ام فصاحتو موي صعبان مو من مو دون كعب واسانا لبرهاما مورو ابو الليسي في القرآن دان دروس باي باكو جانغال بموين اندو رونا براما موسي بويه بعلم النحوي مودي همر واكوفا اك بسرا اكبسرا اك نوي سوداني براما موي قاسم وامن دينار فروع لمن دوير سرا فودي يدن سور براما لي شيخ موسى كميلان ويسي احمد بامبا موكو وخ كون لي نغا خمنه موم لاكو ما عبد العزيز دبا وخ am na ay sawaahid yu bari yu nit mën a tudd ñu seede ko ci moom kon lépp loo xam na ko ci baay rek loolu am na ay sawaahid yu ko seede di ay boroomi xam-xam yu mag ay xulafa yu seede loolu ci moom ñoo xam ne ay tijaan yi lañ comme moom ñoo xam ne ay taalibeem lañ ñoo xam ne sax duñu ay taalibeem ndax Cheikh Moussa Ka mii ma nettali taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la te moom mooy ki daan woy Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi nak radiyallahu anhu wuute nak sëriñ yu bari neexut ta xas ci ay domam ndax domam yeb dañ leen xam te domam yeb yonent bi alayhi salatu wassalam la leen tuddé waxon na ne walaw balaqu alfan walaw balaqu law balaqu alfan wa sa'du fa innama usami'u wa asma'u gayra al anim buñ maton junne mbaa ñu ëpp ko yit tur yent yàlla Muhammad la leen di tuddé kon Cheikh ibrahim anis radiyallahu anhu doomam yi daf leen jangalo waaye sàkku tamit seen ak am sàkku seen ak am sàkku seen ak am mooy lan mooy doom yi mu ñaan yàlla ba yàlla may ko doom yi nga xam ne yooyu la bëggoon te loolu def na ci ak ñaan dafa am benn jamono muy 1961 Baay Ñas yebal délégation ci ay doomum ngir ñu dem jàngi mu bind benn leetar ci ñoom ba mu commencé ca leetar ba dafa wax ne alhamdulillahi di amara bi taskir وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ماغي سنت يالا ميغا خامني وارال نانيو فاتالي ماغي فاتالي ناخ يالا القران دا بون فاتالي ناخ فاتالي دنا جيرين جوليت بي باي نصر رضي الله عنه واخ دوما مي نالين فبمناسبه مغادرتكم لوطنكم فاوزيكم ايها البعث العلميه المتوجعون الى القاهره عازمه العلم بان لا تعلو جؤد في طلب العلم والتعمق دنگ فيه مع التمسك بمبادئ الإسلام السامية تقوى الله في السر والجهر والمراق والمراقب ولو مراقبته مع الأنفاس حسب الطاقة والتمسك بكتاب الله بأن يكون القرآن نسب أعينكم فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا وعليكم بجميع هذا الدستور العظيم الكفيل بسعادة الدارين في صدوركم فلا تستبدلوا به غيره فقد قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير mu ne leen yéen maa ngi leen di dénk ragal yàlla dénk naa leen ngeen góorgóorlu ci xam-xam waaye maa ngi leen di wax ne yàlla may na leen may na ma alquran yàlla ji ñu sàmm ko ci suñu dënn yi ngeen la waaye bu leen ko soppee leneen waaye su ngeen demee bu leen topp maddaa yi maanaam madd yi anil maanaa walis maanaa yi moo tax doomu bay Ñas yi madda yi lañ desal ginnaaw waaye maanaa yi lañ jiital mooy xam-xam lañ jiital ñoom ci am-am loolu bàyyi moo leen waxoon ne falaa tax fan falaa falaa falaa tastaxfannakum almaadatu an ilmaana fa inna lilmaadati unaasun wa lilmaana axirina wa iyaakum wa tasabbuu bilmuaasirina alladina taqat fihim almaada maa ngi leen di dénk bu leen niroo mukk ñi nga xam ne ñoom duñ def lu dul jël madd yi rek jiital ko mooy alal rek ñoom daal alal rek yéen sama doom yi man Baye Niass maa leen di digal ne bu leen jiital alal bu leen dem ba xaaxira ñu ne da ngeen di jàng ngeen dem di ut alal di def ni ñenn ñi di def di wala ngeen di jàll ci réew yi ngeen uti atal yéen xam-xam laa leen utloo bu leen niru lu kenn na ngeen xam ne fa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne niru niru la nit ci ñoom nga bokk mu ne su ngeen xéwénalee ci liggéeyal diina xéwénal ci liggéeyal aduna loolu laa bëggoon su fekkee ne loolu maamun nag fexe leen ba na ngeen dégg diina fexe leen ba na ngeen doon ay mutasawifuun fexe leen ba nangeen jàng ba bu ngeen delloo ci seen dëkk dégg ngeen nekk fa ay attekat nekk ay waaratekat nekk ay bindkat nekk ay boroomi xam-xam yu ñuy laaj ñuy tontu nekk ay jàngalekat yu mat nekk ñoo xam ne ñu mat leen ci yàlla déggal bàyyi rek mu ne bu leen tilimal seen der ba faw na ngeen jiital lislaam te ngeen xam ne lislaam dégg nga bëgg sa réew mooy lislaam kon lu ngeen mën ta xam delluwaat leen ci seen réew te mooy Sénégal mu ne leen bu leen tux cigarette maa ngi leen koy tere cigarette lu bona bona bon la fa innahu xabisun isman wa sifatan wa saatan bu leen laal cigarette maa ngi leen di dénk ne dénk na ngeen góorgóorlu ci sariha lépp luy ragal yàlla na ngeen ko def waaye na ngeen moytu lépp loo xam ne sikk la مؤن لله والعسر إن إنسان لفي قسر إلى الذين عملوا وعملوا السهلات وتواصوا بالعقل وتواصوا بالصبر من من الدوامي <clears throat> وأعيدكم بأني سوف لا أصال لكم بعول الله وبقوته سندا قويا ووالدا شفيقا عميما رئيما في كل الميدان ماديا ومعنويا ما دمتم على أهدي مستمعين عليه يدا واعدة كلكم مرات لأخيه ومن سس منكم سس مني واعلموا أني تلبتكم وأنتم في القيب أولياء الله جل سانه وسميتكم بمجرد ما رأيتكم بقرة عين بقرة عيني حبيبي وحبيب الله محمد عبد الله ورسول الله نسير الأمة من محمد نسير وما الكفري والهادي ماهي محمد الماهي وعادل البصر مو الشيخ محمد الهادي وامين الوهي مو الشيخ محمد دينغم الشيخ آه، محمد الامين باب الامين وعاقب الرسل وعدن المكي مو الشيخ مكي الشيخ محمد العاقب والمامون فارجو الا تختاروا طريقا خير الطريق الذي رسمته لكم ورسمه لي والدي العاج عبد الله ولا يكن نفعكم دينغ خاسرا بل بل فاعملوا النفع والخير الى جنسكم ووطنكم اولا ثم الى العالم اجمع واستودع الله دينكم وأ وأمانتكم وقواتم أعمالكم والله أرجو أن يوافقكم والسلام قولا كدري نمرفتي من كن lépp loo baax seede na ko ci baay rek loolu am na ay sawaahid yu ko seede خم ay boromi xam-xam yu mag ay xulafa yu seede loolu ay tijaan yi lañ ko mom ño xamne ay talibem lañ ño xamne sax duñ ay talibem ndax Cheikh Moussa Ka mi ma netali talib Cheikh Ahmadou Bamba la te mom moy ki daan way Cheikh Ahmadou Bamba bay nak radiyallahu anhu uute nak serigne yu bari neexu ta xas ci ay domam ndax domam yeb dañ leen xam te doomam yëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam la leen tuddé waxon na ne walaw balaqu alfan law balaqu law balaqu alfan wa saadu fa innama usami'u wa asma'u al anim buñ matoon junne mbañu upp ko it tur yént yàlla Muhammad la leen di tuddé kon Cheikh Ibrahima Niass doomam yi daf leen jàngaloo waaye sàkku tamit seen ak am sàkku seen ak am sàkku mooy lan mooy doom yi mu ñaan yàlla ba yàlla may ko doom yi nga xam ne yooyu la bëggoon te loolu def na ci ak ñaan dafa am benn jamono muy 1961 Baay Ñas yebal délégation ci ay doomam ngir ñu dem jàngi mu bind benn leetar ci ñoom. ba mu commencé ca lettre ba dafa wax ne alhamdulillahi alladi amara bi taskir wa zakir fa inna dikra tanfau lmuminin maa ngi sant yàlla mi nga xam ne waral na ñu fàttali maa ngi fàttali ndax yàlla alquran dafa wax ne fàttalil ndax fàttali dana jëriñ julit bi bàyyi ñas radiallahu anhu wax doomam yi ne leen fa bi munasabati mugadaratikum li watanikum fa usikum ayuha albiasa al ilmiya al mutawajjauna ila alqahira عازمة العلم بأن لا تعلو جؤدة في طلب العلم والتعمق دنگ فيه مع التمسك بمبادئ الإسلام السامية تقوى الله في السر والجهر والمراق والمراقب ولو مراقبته مع الأنفاس حسب الطاقة والتمسك بكتاب الله بأن يكون القرآن نسب أعينكم فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا وعليكم بجميع هذا الدستور العظيم الكفيل بسعادة الدارين في صدوركم فلا تستبدلوا به غيره فقد قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير mu ne leen yéen maa ngi leen di dénk ragal yàlla dénk naa leen ngeen góorgóorlu ci xam-xam waaye maa ngi leen di wax ne yàlla may na leen may na ma alquran yàlla ji ñu sàmm ko ci suñu dënn yi ngeen la waaye bu leen ko soppee leneen waaye su ngeen demee bu leen topp maddaa yi maanaam madd yi anil maana walis maana yi moo tax doomu Baay Ñas yi madda yi lañ desal ginnaaw waaye maanaa yi lañ jiital mooy xam-xam lañ jiital ñoom ci am-am loolu Baay moo leen waxoon ne falaa tax fan falaa falaa falaa tastaxfannakum almaadatu anil maana fa inna lil maadati unaasun wa lil maana axirina wa iyaakum wa tasabbuc bil muaasirina alladina taqat fihim almaadda maa ngi leen di dénk bu leen niroo mukk ñi nga xam ne ñoom duñ def lu dul jël màdd yi rek jiital ko mooy alal rek ñoom daal alal rek yéen sama doom yi man bàyyi nes maa ngi leen di digal ne bu leen jiital alal bu leen dem ba xaahira ñu ne da ngeen di jàng ngeen dem di ut alal di def ni ñenn ñi di def di wala ngeen di jàll ci réew yi ngeen uti atal yéen xam-xam laa leen utloo bu leen niru nirulu kenn na ngeen xam ne fa man tasabaa bi qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne niru niru nit ci ñoom nga mu ne su ngeen xéwanalee ci liggéeyal diina xéwanal ci liggéeyal aduna loolu laa bëggoon su fekkee ne loolu ma amul nag fexe leen ba nangeen ngeen dégg diina fexe leen ba na ngeen doon ay mutasawifuun fexe leen ba na ngeen jàng ba bu ngeen delloo ci seen dëkk dégg ngeen nekk fa ay attekat nekk ay waaratekat nekk ay bindkat nekk ay boromi xam-xam yu ñuy laaj ñuy tontu nekk ay jàngalekat yu mat nekk ñoo xam ne ñu mat lañ ci yàlla déggal bàyyi rek mu ne bu leen tilimal seen der ba faw na ngeen jiital lislaam te ngeen xam ne lislaam dégg bëgg sa réew mooy lislaam kon lu ngeen mën ta xam delluwaat leen ci seen réew te mooy senegaal mu ne leen bu leen tux sikareet maa ngi leen koy tere sikareet lu bona bona bon la fa innahu xabisun isman wa sifatan wa saatan bu leen laal sikareet maa ngi leen di dënk ne dégg nga na ngeen góorgóorlu ci sariha lépp luy ragal yàlla na ngeen ko def waaye na moytu it لب لو قمنا سكلا مو عند الله ولا عسر إن إنسان لفي قدر إلى الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بلاقي وتواصوا بالصبر من تا من دوامي وأعيدكم بأني سوف لا أزال لكم بعول الله وبقوته سندا قويا ووالدا شفيقا عميما رئيما في كل الميدان ماديا ومعنويا ما دمتم على أهدي مستمعين عليه يدا واعدة كلكم مرات لأخيه ومن شش منكم شش مني واعلموا أني تلبتكم وأنتم في القيب أولياء الله جل شأنه وسميتكم بمجرد ما رأيتكم بقرة عين بقرة عيني حبيبي وحبيب الله محمد عبد الله ورسول الله نسير الأمة من محمد نسير وما الكفري والهادي ماهي محمد الماهي وعادل البصر موي الشيخ محمد الهادي وامين الوهي موي الشيخ محمد دنجم الشيخ آه، محمد الامين باب الامين وعاقب الرسل وعدن المكي موي الشيخ مكي الشيخ محمد العاقب والمامون فأرجو ألا تختاروا طريقا غير طريق الذي رسمته لكم ورسمه لي والدي العاج عبد الله ولا يكن نفعكم دنگ خاسرا بل بل فاعملوا النفع والخير إلى جنسكم ووطنكم أولا ثم إلى العالم أجمع وأستودع الله دينكم وأمانتكم وقواتم أعمالكم والله أرجو أن يوافقكم وسلام قال kàddu yi nim rafete mu ne bàyyi na leen na ngeen fexe ba ngeen góor góorlu lii ma leen di wax lu ma teg bët la ne cigarette baaxut ci jëmm baaxut ci tur baaxut ci melo mu ne leen loolu dama koo gis du loo xam ne dama koy nattable mu teg ci na leen na ngeen xam ne maa ngi kafaslante kóllëre ak yéen ne man mii na ngeen xam ne duma dëñ te duma mos a dëñ di seen wéeruwaay moo tax doomi baay ñes yi baay rek lañ gëm baay du seen baay rek teg ci seen sëriñ la duma dëñ nekk seen waajur boo xam ne bu am cofel laa ci yéen bu am yërmande laa ci yéen duma dëñ di nekk loola ci bépp réew ak ci bépp dëkk moo xam lépp lu ngeen soxla ci wàllu màdd wala ci maanaa féeg yéen a ngi dajee ci li ma bëgg ngeen nekk benn loxo yéen sama doom yépp denga nek ben loxo yéen ñëpp kenn ku nek nek sa setu mbokk yéen ñëpp kenn ku nek dimbale sa mbokk na ngeen xamné dama leen sàkku ci xay bu fekk ngeen di ay nitu yàlla ma denga nga leen ki ma gën bëgg nga xamné mo nek ci sama xol moy yéntu yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam nasir muhammad nasir muhammadul mai muhammadul adi mu denga muhammadul amin muhammadul aqib muhammadul makki ma Maamun ñii ñoo nekkoon ci biasa ba moo tax bàyyi tudd leen dégg nga mu ne leen nag yoon wii ma tëralal leen bu leen tànn beneen yoon bu dul yoon bii yoon wii nag sama baay moomu ko tëralal man Alaaji Abdoulaye Niass te mosuma koy wàcc kon lii ci la Baye Niass yaroon ay doomam kon wax ji nga xam ne mbokk maa ngi koy wax lu ñaaw jëmale ko ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu damaa wax ne ñun taalibe Baye duñ tontuwante wax ju ñaaw dégg naa sama mbokk Cheikh Aboubacar Thioub. defoon ci benn tontu benn taalibeem jëlaat audio bi def ci tontu bu ñaaw wax ci Cheikh Ibrahima kàddu yu ñaaw waaye ñu ngi koy xamal ne ko ñun suñu sëriñ yarewut ñu noonu du ñu tontuwante mukk ci saaga du ñu tontuwante ci xaste koo dégg muy tontuwante ci saaga wala muy tontuwante ci xaste moom dafay mbubuwoo suñ sëriñ waaye dëgg dëgg du suñ taalibe sëriñ ndax Baye Niass moom dafa tere saaga dafa tere xaste looloo tax duñ ko tontuwante su fekkoon ne lii mu wax ci ay masala la ko teg danañ ko ci mën a tontu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mosta romb bu ñeenti soxna mboolem tam xarit bu jotaan daan na bind moom Cheikh Ibrahima li am ci doom daan na moom Cheikh Ibrahima li mu am ci soxna loolu ñépp a ko xamoon ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu Cheikh Ibrahima Niass mosta wéet ak jigéen daan na ko bañ ba dafay wax ne li ma gën a ragal ci yéen mooy jigéen kon bàyyi daan na daan na ko tere te itam dafa fekkoon mu fegu ci boppam wax ne moom bàyyi ne wa maa nahaytukum an shay'in du ma leen tere dara mukk lu dul gannaaw bu ma ko bàyyee ba pare du leen digal dara mukk lu gannaaw bu ma ko jëfee ba pare kon képp koo xam ne dangay am sa wax yu ñaaw wala sa tuuma yu ñaaw yooyu yëkkati di ko teg ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu na nga xam ne taalibe bàyyi yi mën nañ koo faj njabootu baay gi mën nañ koo faj waaye ñoom seen baay wala seen sëriñ fajee wut leen noonu bëgg naa nag lii nga xam ne Abdou Hamid Sarr mu ngi koy wax ak ay taalibeem na ci état wax na ci waay Tiwaawan wax buñ ci waxul mën naa jur jéyee joo xam ne musiba lay doon ëllëg te musiba boobu yàlla nañu ci yàlla musal mooy xeex di am ba dox ci diggante Tiwaawan ak li nga xam ne mooy Medina Baye te it képp ku ñuy tooñ nga noppi bu yàggee nga wax lii nag yàgg nañ koy def waaye pays baa ngi noppi rek seen ak noppi duwul ragal seen ak noppi duwul ñàkk xam histoire seen ak noppi duwul ñàkk xam waaye seen ak noppi yar la ak xam-xam bu bëri ndax liñ xam ci histoire ñun bëri na ku ñuy saaga wala di tooñ bu ñu waxoon liñ xam ci yow nga xaru ji waaye ñun duñ wax kenn lu ñaaw duñ jëf kenn lu ñaaw ndax baa yarewul ñu loolu yarut ci ay doomam gis ngeen li ma wax léegi ci loolu la yar ay doomam ñooñu mu tudd ak ñi tudd yépp ci loolu la leen yar ci la yar ay taalibeem ñoom Seydi Ali Cissé ci la yar taali si ay seeni ay sëtam ci lañ yar ñépp jàmm lañ xam jàmm la ñuy oote ci réew mi kon lii bu ci état mënee wax نتي اتا واخ بلا موي اوبو بوتي واتي واون مانا واخ نتي واي تي واون واخ بلا موي اوبو لي لنجي امون لي ني اندي سي اي ليرال سين بوكلون شيخ محمد الحبيب نجاي باي بوين دغ الكايموري ان يال ديفال ني جامو اك توفيق لو تي دنج نين خامني تي مان لا لو تي جوم نين خامني تي يالا لا وما اردت الى اصلاح وما توفيق الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته